<laughs> jërëjëf Babacar jërëjëf sa mbay ci digital gi mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen ziar bu baax di am yaakaar ni njeextalu ay bés bi neexoon na ci yéen ak seen njaboot ñu ngi leen di ñaanal ay bésu jàmm. xibaar yi dañu koy tàmbalee ak réeróo politique gi ci réew mi ak délégation bu CEDEAO bu fi ne dee mbag léegi ngir rek xool nees mën a def ba wis ndox mu sedd ci réeróo beeg ayo yi. jamono yi seen njiit ñoom CEDEAO di président bu Nigéria ñu koy xaar tey ci Ndakaaru xibaar yi bokk na ci coordonateur coordonnateur général bu appel bu maam li mu Mahdi Lay lu mu bëgg ci réew mi rek du leneen lu may ak dal euh, jàmm ak sago ministre intérieur teewoon ca cérémonie officielle appel bi Euh, xam leen ni dégg na bu baax kàddu ak ndigalu euh, kilifa gi xibaar yi bokk na ci it bu njëkk bu njabootu gune gi nu faat ci manifester yowoon weekend bi ci Ziguinchor euh, ñoom nag dinañu daal di yóbbu mbir yi ci yoon jamono yi ci ndar moom njabootu étudiant ba fa faatu la nuy ñaawlu mooy ñu ne li kilifa yi kër docteur lank leen wan ne yëpp seen doom jërëjëf Aliou Ba ci technique bi ñu tàmbalee mbokk yi xibaar yi crise politique di réeroo ci wàlluk politique bi am ci réew meeg CEDEAO gi ci wër euh, buntab jàmm moo waral sax euh, njiit la euh, di njiit bu Nigéria ñu ko fi xaar fii ci Sénégal altine tey jile mu war fi dajeek ak naatangoom président Macky Sall fekkoon na booba démb délégation bu CEDEAO jiitu ko fii Ndakaaru ñoom it lenn ne mbébét la ñu am mooy fexe ba gisee ak ñu yëngu ci wàllu politique gi société civile gi ak banqaas yi war ngir rek wut jàmm ci réew réew mi Boubacar Dieng boolaati Bola Tinubu di yegg ci Sénégal ci jamono joo xam ni mbir yi tàng na lool ci visitu ko benn fan bi muy amal fii ci Ndakaaru Njaay nga xam ni moo jiite CEDEAO di war a waxtaan ak njiitum réew mi di président Macky Sall bokk na ci li ñu war a waxtaanee mu di crise politique bi am fi mu toll nii ci Sénégal ay bés bi ñu génni ci ab bataaxal waa CEDEAO dañoo sàkkoon rek ci président Macky Sall mi nga xam ni dafa yokk mandaawam ci mu jëfe li calendrier républicain bi wax ci jamono jooju intitulé ab délégation bu parlement bu CEDEAO yegg si Ndakaaru Njaay démb di dibéer ñoom ñi leen nag war nañu fee def ñetti fan si googu le war nañoo dajek ñi nga xam ni ñoo di seen natango député nekk si pencum ndaw réew ma naka noonu ki nga xam ne moo leen jiite di Amadou Mame Diop war waxtaan ak groupe parlementaire yi conseil constitutionnel waaye itam daje ak ñi nga xam ne ñoo di waa société civile naka noonu ay waay politique ba léegi waxtaane jafe yi am si wàllum politique fii si Sénégal ñetti ndaw ñoo ñàkk gum seen bakken ci manifestation yi nga xam ni door na aljuma ji ñu génni li ko war waral nag mooy li ñu daaxandi élection présidentielle yi waroon am ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février atum 2024 bi ñu nekk yóbbu ko bu fukki fan ak juróom ci weeru décembre atum 2024 ba tey. jërëjëf Boubacar tolluwaayu politique gu réew mi it yitteel lool kilifa yi tedd yu njabootu maam Limaamu Mahdi laay démb ci euh, appel bi coordonnateur général bu boobee appel woote jàmm jàmm ak dal ci réew mi ministre intérieur Sidiki Kaba it ne ko waaw dégg na wax ji bu baax it ci jàmm joojee la ñëpp yi wër Oumar Mbow ci nettali gi ñeel boobu cérémonie officielle ak kàddu yi fa jibee euh, tukkee ci kilifa yi. booloo bu dëgër ànd ak jàmm li nu mel la ñu jëloon kàddu yëpp fii ci Yoff daanaka daal di wax Sénégal nag jamono ji nekk ci guddi bu bët setigul ginnaaw bi ñu noosee ne dañuy reporter élection présidentielle bi coordonnateur général bu appel Seydina Issa Laye Thiaw def fatwa jëmale ko ci mboole mu sénégalais. ay doomi Sénégal laa jàkkaar lool jàkkaar ma nii opposition nii ceci mais ay doomi Sénégal yoo xam ne rek toog li am solo a bi kër gi. day dajale defaral Sénégal lépp di ndox mu sedd lépp di nangam ñu jublu ci développement yéen bu ñu xoolee tey sunu réew def na ay jéego Sénégal di une république bananière déedéet am na lu ñu def ba egsi ba fii bu nu xoolee nag feneen am na lu ñu tabax te bu ngeen xa xoolee am na ñu ngi ñuy delloowaat fu gën a gën sunu constitution yépp intégration lañ ci def tey li ñu tabaxoon wàllu balkanisation ñëwaat na ñu ngi tasaat tasaat li ñu tabaxoon ci ndàngam yi te dara warulu ko problème yi nekk suñu réew te am nañu ne ci biti Afrique wala suñu sous-région yi daje intéressé kon ay alerte la. mu doon ay kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko ci teewaayu jëwriñ bu ñu dénk biir réew mi maître Sidiki Kaba ne dina ci sukkandiku bu baax a baax. mu ngi sàkk ñaan pour jàmm bi nga xam ne wax na ko mu am ci réew mi. di di la ñaan tamit nga ñaan pour tout le Sénégal. li nga xam ne dafa war a nekk difficulté difficulté bi loolu yëpp mu teggeeku ñu mën a ànd tabax réew mi dans une démocratie apaisée comme ni ñu ko waxee réconcilier ci noonee kon la 144e appel bu Seydina Limamou Laye daal di jeexee bi lay woote nag dafa amoon ren tem bi nga xamante ni moom la ñuy woowee unité socle de la stabilité politique et sociale ci bile événement nag ay fidèles laayeen yu bëri teewee woon nañ ko RFM Yoff Jamalaay Omar Mbow jërëjëf Oumar président Macky Sall dañu war a tekki ndombal tànkam ndax coup d'état constitutionnel la def kaddu la yu euh, monsieur ministre Habib Sy di candidat présidentiel euh, moom leader coalition Diomaye ci wàllu ay coup d'état militaire ak yeneen ci conférence de presse la ko xam ne ci teewaayu xuja jàngir RFM Aminata Touré jàpp na ni li fi xew boobu ba tey ci njiitu réew mi la sokkee ko moom mi fi nekkoon élimaanu jëwri ni nag mi ngi ñaawlu li mu jàppee ko ci coup d'état su ngeen ñëwul am na ñoo xam ne ñu ngi fi ah. dinañ ñëw jël la pouvoir loolu mooy appel à coup d'état yow bañ lay jox nguur gi ci démocratie la ñu jaar jox la ko bu ñu la jaarale woon fii ngay jaarale nit ñi kon doo mës a dégg président lii fi xew yëpp yaa ko indi yow yaa arrêté le processus démocratique à quelques heures de la campagne électorale yi kàddu yi njiit réew mi yëkkati woon bi muy àddu ci ab entretien bi mu amaloon ak presse étrangère bi lu garaaw la suñu sukkandikoo ci Habib Sy li ni mel sax tax ñu war ko fee jëlee waaye itam communauté internationale dañ ko war a ci lii conseil constitutionnel dafa war a déclarer Macky Sall ne mënatul yore nguur gi ba noppi jëlee ko ci bopp état bi ndax li mu wax dafa graaw coup d'état la def jamono ji ba noppi di ñaax militaires yi ñu def beneen coup d'état Macky Sall communauté internationale dañ ko war a sanctionné ndax ci kanamam la ñëpp seen ñuy fitnaal ay jigéen ba noppi di faat ay ndaw. ay nit yu bari ci am nañ ay gaañu gaañu ci violence yooyu ñeneen itam ñu arrêté leen ñi nga xam ne ñooy allié candidat bii di Bassirou Diomaye Faye xamle nañ ne dinañ dem nemmeeku ji ci ñooñu waaye itam àllarba bi ñu jëm ak alxamis dinañ si amal li ñu dippee journée ville morte El Malick Ndiaye nag profité na ci li ni mel ngir amal ak weddi ci communiqué yi ñuy dawal ci réseaux sociaux yi di xamle ne Pastef dafa nangu wuy ji ci jaloog bi président Macky Sall di leen woo jërëjëf soxna Khoudia ministre porte-parole gouvernement bu Sénégal Abdou Karim Fofana yëkkati kàddu ñeel wàllu benn dox bi euh, société civile bi euh, namm talaata ëllëg jile euh, na fekk mu ne mu dëppook gis-gis ak kilifa administration du préfet Ndakaaru ndax mooy apprécier ci weneen wàll it wàllu kàddu yi président yëkkati jëm ci ñu moytu balaa yeneen ni xeeti force yi dugg ci réew mi loolee mu ne président xalaatam mu ngi woon dem ci ay forces étrangères ñu déglu monsieur le ministre Abdou Karim Fofana ak Ibrahima Diamé Sénégal bu fekkee ñu koy organiser wàccoon nañ ak ñaari ponk ponk bi jiitu mooy fexe ba déclarer ko laaj autorisation ki nga xam ne mooy autorité administrative mooy préfet wax ko ne dañoo bëgg marche marché bi nii lay demee diw ak diw ak diw ñoo ko organisé ponk boobu boo ko yi beneen ci topp mooy préfet bi nga xamante ne moom la ñuy laaj autorisation mu def enquête administrative xool ndax dara raxu ci loo xam ne du marche fekk loolu gisuñu ko ci marché yi mën nañ la autoriser ndaxte ñun amuñu dara lu ñuy ragal li ñu jàpp mooy képp koo xam ne am nga lu la neex wala lu la naqari war ngaa mën a génn wax ko donc loolu bu fekkee wàccoo nañoo moom benn problème amul ci euh, marche bu ñu war a organiser. Mhm. Euh, dëgg nañ euh, keroog njiitu réew mi accordel ay médias étrangers interview mu ne en tout cas fekkee ne opposition ñëw ñu dialogue am na ay forces organiser yoo xamante ne mën nañ ñëw jël nguur gi yan force lay wax exactement lay junj noonu. waaw loolu wax ju leer la parce que ku ne xam na ne réew yi nga xamante ne ñoo féetee Afrique soowu jant muy Afrique de l'Ouest gis nañ dëkk yi ñu wër yëpp li leen dal ku ci ne rek am nga benn force extérieure boo xam ne ñëw na perturbé la ñuy feeñ ci xar kanamu terroriste wala jihadiste wala ñeneen ñoo xam ne mën na am am na lu feeñ ci réew mi ci alal loo xamante ne bëgg nañ teg ci seen loxo ñun nag Sénégal seetlu nga ne biñ ne pétrole ak gaz ba léegi coow li bëri na gis nga ñi ne ci dëkk bi donc président loolu lay wax ko Mhm. kon force parce que daa am ñu bëri ñu jàpp ne force organisée yi muy wax noonu mooy armée nationale. waaw xam nga nit ñi moom ku ci nekk xalaatam. waaye ku ne xam na ñun armée bu républicaine bi ñu am bi nga xam ne seen aada ak seen cosaan gis nañ ko depuis 1960. mu nekkoon euh, kàddu yu ministre Abdou foofa Fofana yore kàddu gouvernement bu Sénégal. réaction bu njëkk bu jabootu ndaw lii di Landing Camara bi nu faat euh, ci weekend bi ci Ziguinchor ci euh, manifester yi ay jege ñaaleem njaboot gi euh, naqarlu lool faat gi rawatina ba mu noonoon kenn ci yaay ji ku ko daa jàppale ci wàllu jokkoo ndax yaay ju lu ca tëx la la amoon njaboot gi nag dàqul it xalaatu jokkoo ak yoon ngir leeral danu ci déglu kenn ci ñoom Daouda ju mooy porte-parole bi ñu teewlu ko Lamine Ba chaque fois après ci football muy ci daara muy ci daara julli amul heure bu bu passé Lamine Camara loolu boo gisee xale bi ku mel comme nii war na sant yàlla mais tey Ziguinchor rek moo ñàkk yàlla Lamine ku xam kan mooy Lamine suba bu ñëwee fii day jox ki moom interprète parce que interprète ku mënul wax ku dégul yëpp noppi yëpp dafa tëg chaque fois ak gestom lu ñu wax moom day interpréter ak gestom et yaayam day comprendre mais tey bu ñàkkee Lamine Camara kan moo ñëw toog ci côté ci ci ci côté kan moo la dimbale même pour dem liggéey loolu métti na loolu métti na Sénégal Afrique dunia ah yaram daw na loolu moo tax tey ñun kay famille ma ah, ñàkku na mais di côté moo gisee nit yi damay kontaan sant yàlla loolu lañu bugg bëgg ku dee nga am nit ñu bëri ñu ñëw témoigner la que kii doom bu depuis ci suba may jooy. côté justice euh, incha allah suba affaire bi dee leer parce que bu ñu amul kayit il faut ñu am kayit pour ñu mun a xam justice yoon ci justice. ca Ndar euh, étudiant yu université Gaston Berger la ñu bëgg mooy ay leeral ci paatuk kenn ci seeni camarade ñu ngi artu nag ñu ne kilifa yi ci ñu bañ leen nëbb euh, li dëgg gi ci conférence de presse démb bokkoon na it ci la ñu fa yëkkati ne ay kàddu di sàkku démission bu ministre bi ñu dénk njàng mu mi. waay juri euh, étudiant euh, bi ñu faat di alfa Yero Tunkara euh, ñoom it fësal seenuk tiis ak naqar ndax ba fii gisuñu néewb seen doom joojee bopp ba rek lañ leen wan ñu ne ci wàllu ba ñu demee loppitaal ñu muri bopp ba ñu gis waaye ci seen gis-gis kilifa yi kër docteur dañ leen di nëbb néew ba di lu ñu ñaawlu lool leneen ci xibaar ak RFM manifester yëpp woon ak ñu nu ci jàpp ak ñu nu ci gaañ ak élection yi nu toxal ba beneen raddo rafetlu ko violence yi lalu ci loolu lépp muy ci manifester yoo xamante ni seeni borom dañ caa jugte woon lal ko ci jàmm moo waral ñuy sàkku ñoom raddo ñu ba ñu nu jitee te ci it ba askan bi ci seen liberté d'expression ñu doxal ci seen wàllu dox yeenu namm Sadikh Niass lañu ci àndal secrétaire général bu raddo ñu teewlu ko Serigne Saliou Seck gis nañu vraiment violence bi nga xam ne moom la ñu teg seen kaw te takk der yi teg ko pour disperser manifestation wala ñu maintenir ordre bi pour ñun dafa ëpp dayoo ndax euh, ci violence yooyu ak répression bi gis nañ si ñetti nit sax yi ci ñàkk seen bakkan te lu ñuy ñaawlu la ndax euh, pour ñun euh, maintien de l'ordre daal warul def fex ba nga xam ne nit dinay faat gis nañu ku mel ni Alpha Yoro Tunkara ci Saint-Louis étudiant la Modou Guèye marchand ci Dakar ak Landing Diédhiou bi nga xam ne ab ndaw la bu nekk Ziguinchor ñoom ñett ñëpp dañu ñàkk seen ay bakkan gis leen ci commissariat yi ak ci gendarmerie yi li ñu compté sax ëpp na ñaar téeméeri nit mais li ci gën a ñaaw nag mooy ñi nga xam ne ay journaliste lañ nga xam ne ay taskatu xibaar lañ ñoom seen liggéey rek la def ak tamit benn koo xam ne sax moom way laago la ci Ziguinchor loolu yëpp moo tax ñu ñi ngi la bu baax li am te bu ñu jaalee ñi nga xam ne dañ ci faatu ñi ngi wax ne ñaawteef yooyu dañu ko war a wàññi dañu war a fexe ba nga xam ne manifestation pacifique dañ ko war a encadrer li nga xam ne mooy autorité itam yoo xam ne nii mooy liberté expression dafa am maanaam loolu bu amee dañu war a fexe ba nga xam ne ñi nga xam ne ñoo siy liggéey maanaam journaliste yi bu amee ay firnde yu mel noonu dañ leen war a aar te takk der yi sax dañu leen war a dimbali ci ni ñu leen di aaree ci biir euh, manifestation yooyu maanaam keroog ajjuma ba léegi li ñuy naqarlu mooy reporté bi ñu xam ne reporté nañ ko élection yi te nit ñi gis ne loolu dafa jalgati seen constitution Sadikh Niass jiite RADDHO kuréel guy yëngu ci àq ak yelleef doomu aadama Mbacke la mu gis moom mooy ñaawlu ba fa ñaawlu yam manifeste yi woon ci diwaan gu tedd gi euh, di Touba moom sëtëb euh, Cheikhul Khadim gi di conseil économique social euh, ne wàlluk manifester moom manes na cee rus benn kilifa gu tedd gi Serigne Mountakha Bachir ba ca topp ñu wormaal diwaan ga ca loolee woon na ñëpp muy Serigne di taalibe ci ñu gën a baxel war may Touba Mbacke yenn opposant yi ci gis-gisam ñoo xamante ni weexu nu ñuuluñu ci wàllu report élection ak làq-làq ñu ca boole ci gis-gisam loolu rafetlu ko Bara Dolly Mbacké ak Pape Mbaye dëkk bu tedd bi di Touba ci amuñu ku dul Serigne Touba fi nekk tey di Serigne Mountakha Xaadimu Rasuul kenn ku nekk xam na ne mbooleem xalifa bu fi jaar dafa takk ndigam takk laxasaayam ba tey yàlla def ko muy Serigne Touba ñu gis ni lii dëkk bi di méngoo ak yi fi am sëriñ mu Mountakha méritu loolu ca sëñ mu Mountakha jiwu ko waa dëkk bi lii ñuy def Serigne taxaa ànd koo ci gone di ko def mu taxaa tey ku ko moomul dëkk bi bu la ko defee du la neex bu ko defee du la neex ndax ñii fi ne yëngatu ñëpp ak di weddi sëñ bi boo ko toppatoo ñu war moom dëkk bi ñoo nekk ci gannaaw di yëkkati ay kaddu ñu leen di séentu ci loo xam ne nii lu war a défendre dëkk bi la ak lu war a saxal euh, li nga li nga xam ne mooy ndigalu sëriñ bi waaye ñu ngi ci lu Macky Sall am Macky Sall indi ma ne nan arrêté fii président jox na fi ay ndimbal ku ne lam leen defal man mi ànd ak moom def lu mu defal fi nit ay forage defal ni fi nit mu gagné ay procès ay hôpital ay milliards say tool mu jàppale la ci tey tey ñu naan euh, desee na fi neuf mois ku ne génn sa kàddu di wax ci président mooy ki gën a teral ay sëriñ ci mboolem gouvernement bu fi jaar gis ci opposant bi mi ngi def root rootum guddi ay rooti guddi la ñuy def ba pare buñ wàññi koo ñëwaat génnaat lan waxoon ci biir duñ ba bokk ak leen wax ci biti te doo dégg ne opposant bi damm na fii wala gaañ ko fii doo dégg ne doomi opposant bi gaañ ko fii wala damm na fii ñoom ñëpp rawale nañ seen seeni doom sëñ Cheikh maa ngi lay ziar. Guèye El Hadj Assane ñu ngi ziar. congé bi neexoon na de yaa ngi ree rek. sant yàlla rek des tàq. boo yëgoon nag des Côte d'Ivoire ndax foofu fan yëpp doo am lacrymogène. ma maal ko eh, xam naa ne ñoo koy feetu. ah foofu am na jàmm <laughs> wuuteeg fii foofu daal loo ci mënti dégg daal am na hmm. jàmm am na salaam wax dëgg yàlla. Hmm. waaw kay jàmm ji maanaam définir ko taxarñul ma oh, woon. waaw mooy mooy mooy <laughs> mooy ci dund gi ci ci jëfin geeg yooyu yu ni mel mais sant yàlla rek. ma nekkoo woon fër ci boîte de nuit. <laughs> ayca sport dama fréquente boîte de nuit El Hadj. mu ngoog ayca dañ koy daal dooree ko wàllu football dellu justement ci coupe d'Afrique boobu nga xamante ni démb la daal di jeex euh, foofe nag euh, ca Côte d'Ivoire équipe bi nga xam ne moo ko organisé moom moo ko mujj daal di gagné ci diggante mag Nigéria gannaaw final bi ñu doon amal démb ci stade olympique Alassane Dramane Ouattara ci Ebimpe yëf yi nag ma nga amee woon itam ci teewaay Youssou Bodian di kenn si envoyé spécial foofu la ci Abidjan bi match bi di door éléphant yi am jàppale lu ci spectateurs ñoo yor bal bi di ko dawal équipe Nigéria moom doon xaar contre attaque yi waaye ca mujjantal ga ca coup de pied arrêté la but bu njëkk bi duggee 38e minute ci ab corner boo xamante ni côté droit bi lañ ko dóor défenseur bi di William Troost-Ekong daal di jóg mbëkk bal bi daal di daan Yaya Fofana di ñaareelu biyoom ci CAN bi moom défenseur bu PAOK Salonique ci Super League bu Grèce benn bal ci dara ci mi-temps bi bi ñëwaatee ci vestiaire yi ivoirien yi kon daal di am ay occasion yu rëy ba égaliser ci 62e minute de jeu corner la tamit bu jógee ci côté gauche bi traversé surface de réparation bi Franck Kessié mbëkk ko daal di dugal yee supporter yu ébimpe bi Omar Diakité duggee waa Côte d'Ivoire continuer di attaquer Super Eagles si bu ñu àggee 81e minute la ndaw bii di Andingra moom sax moom mooy homme du match daal di déborder ci côté gauche bi centré jot Sébastien Haller mu daal di dugal lu but bu Côte d'Ivoire ñaari bal ci benn waay Côte d'Ivoire ba tey wéy di football seen kanam équipe Nigéria buy tëmbal bal yi waaye mujjul jot Victor Osimhen wala capitaine am bii di Troostekong moom sax moom la ñu fal mu nekk meilleur joueur CAN bi Nigéria def lépp waaye mujjut a égaliser ba arbitre mauritanien bii di Dahane Bella daal tas match bi score final ñaari bal ci benn waa Côte d'Ivoire jël seen revanche ci Nigéria mi leen daanoon ci phase de groupe yi sélection d'Ivoire bii nga xamante kon dafa qualifié en tant que meilleur troisième daal di defati kon beneen jaloore gagné ñetteelu trophée am président Alassane Ouattara jokkoo capitaine bii di Max Alain moom nag bii mooy ñaareelu kan bi mu gagné ginnaaw 2015 moom ak Serge Aurier Youssouf Bodian stade olympique Alassane Ouattara bu Ebimpe pour RFM. Youssouf Bodian yoonu jàmm jàppale ni ci li jëm ci jogante googule sax ki nga xam te moo di tàggat équipe bi du Côte d'Ivoire di Emerse Faye am na ay kàddu yi nga xam ne jot na ko yëkkati moom nag ci fàttali euh, ci digg compétition bi la daal di jël équipe bi nga xam ne moo di Côte d'Ivoire boo fekk nag ñuy laam-laamee ni Côte d'Ivoire toog nag toogul waaye ba mu ko jëlee euh, dafa mu mujjee jël li nga xam ne moo di Coupe d'Afrique bi Quand, quand, euh, quand je repense à tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé. ba tey mënuma gëm ni def nañ ko. su ma xalaatee yu dund yëpp ak jafe-jafe yu amoon match yi nga xamante ne dañoo mënee ñu ñëwaat dernière minute lu rëy lañ def am nañu chance bu rëy def nañ lépp ngir dem jëli coupe bi ndax bàyyi ñu dara xeex nañu jeex waaye nañ ni ay góor lañu ndax euh, mën nañu ñëwaat doone sax amoon na jafe-jafe jafew na lool ngir ñëwaat ginnaaw euh, match de poule yi na lool tawet ngir euh, jëm kanam ñuy joué contre Sénégal kon Mali compliqué na trop lañ doon mëne ñu jéem a égaliser mentalement physiquement dañoo sonnoon ci sunu match yi te nag vraiment kontaan nañu parce que xam nañ ni effort yi ñu def yëpp du neen. on a a respecté le football. gannaaw MSC Faye moom nga xam ne moo di tàggat équipe bi du Côte d'Ivoire naataangoom bu euh, moom itam am na ay kàddu yi nga xam ne jot sax moom José Peseiro laata sax ñu door gi de Coupe d'Afrique des ko ba pare waaye euh, problème koppar yi xam ne amoon nañ ko ngir jox ko ndàmpaayam moo taxoon kon boog ci mujjante ñu mujj kaa bàyyi ba tax na euh, mujj naa tam kon boog am chance moom mi di José Peseiro daal di qualifier équipe ba ci final moom itam démb am na ay kàddu yi nga xam ne jot na ko yëkkati gannaaw conférence de sama équipe def na tournoi bu baax. waaye tey Côte d'Ivoire moo ñu gënoon taxaw def na match bu baax sama équipe def na lépp lu mu mën waaye yëf yi daal doxul te collectivement lañ doon def moom lañ def waaye jàllul jàpp naa tey Côte d'Ivoire seen taxawaay moo gën a baax sama équipe mais sama joueurs yi def nañu liggéey bu baax. a fantastic job until. They nañ gagné trophée bi ngir jox ko askanu Nigéria waaye mënuñu ko def nangu nañ résultat bi sa triste sama équipe triste na waaye jàpp naa ne tey def nañ li ñu mën waaye na moom nii la léeg-léeg dox léeg-léeg du dox. Sometimes you want to do do. mi ngi noonu kon bokk euh, foofu lañ koy ndarkappe lépp lu jëm ci li nga xam moo di Coupe d'Afrique des Nations boobu léegi nag ñu leen ko doon euh, toppal ci fàttali nag Côte d'Ivoire bi ko organisé moom moo ko mujj jël bu loolu weesoo El Hadj Assane ñu daal di waxtaane wàllu basketball ak euh, lii di tournoi qualificatif Jeux Olympiques Paris 2024 yëf yi nag ñu ngi ko doon amal foofu la ca Belgique ni ki démb Sénégal mi ngi doon amal ñetteelu joganteem ci gile tournoi digganteem ak États-Unis la woon états ni moo ëpp doole fii nii xamante ni ñoo di waa Sénégal 101 à jàppale nag Sénégal ci ndorteel gi le tournoi ci Belgique jotoon naa ñàkk ci digganteem ak euh, ñii di waa Nigéria teg li ci euh, équipe bi nga xam ne moo di Belgique Belgique di équipe championne d'Europe Nigéria di équipe championne d'Afrique waaye lu ci mën dem rek jàppale nii di yëpp ci yoonal li nga xam te moo di afro basket bu nekk suñu kanam Sénégal naka war cee wonewaat geneen xar kanam El Hadj ah, waaw waaw il le faut. na waaw mais mais bon xam nga il fallait s'y attendre quand même. parce que mm-hmm. dafa di tournoi bi nga xamante ñi ngay tasal daanaka en fait ñoo la ëpp doole. mu di États-Unis euh, di Belgique di champion d'Europe di mm-hmm. Nigéria bi nga xamante ni moom moo di champion d'Afrique. Mm-hmm. donc euh, boo xoolee li mise en train la rek pour ñu xam incha jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Cheikh ñu dalal Anna Rocha ci chronique culture bi. maa leen di nuyu mbokk yi les atelier de Lady mi nga xam ne styliste bi di Oumou Sy moo ko taxawal màggal nañ euh, seen édition bu njëkk formation décentralisée ca ngeen la woon ñu doon ko jegleel nag euh, ñi nga xam ne ñooy dundee ak laago lu tolloog ci fukki maître tailleur ñu daal di leen tàggat jëm ci wàllu technique yu yees ci wàllu coupe mba finition. Ndeye Mati Dieng ngir yeneen i leeral. dañ leen a tàggat ci liggéey yi jëm ci wàllub ñaw ñoom ñi leen nga xamante ne ay way lañu ngir ñu mënal seen bopp umu ci loolu lay yëngu mu ñuy xamal lim ci jublu nga nit booy liggéey nga bëgg sa liggéey bi nga koy jaay muy jar il faut nga dem ci nouvelle technologie yi te nouvelle technologie yi loolu mooy avancé ci àdduna loolu lañ leen doon jàngal am moment boo xam ne dañu nee nañu leen reprendre pour ñu mun a comprendre lan mooy tracé lan mooy patronage lan mooy finition lan mooy coupe lan mooy couture moo tax ñu dellu ci ginnaaw luy mot ñaari weer ci li ñu leen jàngaloon jàngalaat leen ba ñu mokkal ko ñu soog nag continuer ñoom ñi leen nag nga xamante ne tàggat nañu leen am ci bu baax di gërëm si li yenn jafe-jafe yoo xamante ne ba tey ñu ngi koy wéyaale ci yooyee bokk ci seen wàllub dem ak dikk Marie-Louise Dibor Faye moo jiite centre bi ñu jagleel way laago yi te mu nekk ci ngéeñeen parce que déjà centre bi boo xoolee fi ñu ko def dafa sori ak kër yi pour ñuy dox fii à chaque fois di dem di jëw day métti trop aussi am nañu jafe-jafe pour euh, ñu dugal ñu ci boîte yi parce que handicapé bu defee formation ba pare te amul fu mu liggéey loolu it jëriñul dara Alpha Samb di maire bu ngéeñeen taxaw ne dina leen jàppale bu baax baax mutuelle de santé bi ñu war a mettre en place nañ leen boole am nañ financement bu ñu war a jox nañ jox jigéen ñi cent de financement pour les femmes nañ leen boole mais aussi nañ fexe projet imam bi jox la ay xar yu góor ak yu jigéen su amee doom après yaa koy am solo la kile di umu si nag di sàkku ci kilifa yi ñu gën jàppale way laago yi li nga xamante dañuy ñaw te ñu tàggat leen ngir ñu am jumtukaay yi war ngir mën a demal seen bopp euh, créatrice de mode bi di umu si daal di ci profito yëkkati euh, kaddu ngir ñu gën a jàppale ñi yëngu ci euh, filière bi lee xam ne jànguñu wala ñu dëkk ci gox-goxaat yu sori yi ñu teewlu ay kàddoom. dama bëgg nag kilifay aada yi kilifay diine yi kilifay réew mi ñu bàyyi xel ci ñi nga xam ne jànguñu mënuñu bind mënuñu jàng ñu école te ñooñu dañu bokk ci réew mi léegi nañu dimbale ñi nga xam ne jànguñu te am nañu xarañ ak mën-mën ak bëgg a bëgg a sotti ak tekki ci seen réew ñu dimbale leen ñu sóoraale leen ci seen budget yi ñuy budgétiser waaye saa yu ma ñëwee man fëgg ñun académie la ñu jëngal ñu am CAP ñu am certificat ñu am baccalauréat man aw ma ko te pourtant maa ngi formé ñu bari ñoo xam ne ñi ñu ngi ñu ngi fayal borom baccalauréat yi ñuy jàng école ak borom daara yi ñu ubbi seen i daara ñu gas ay teen ñu tabax ay juma pourtant jànguñu seen xarañ moo leen yóbbu yóbbee ñuy def loolu. jaajëfal Ndeye Mathi Dieng di leen jaajëfal bu baax a baax mbokk yi ci déglu bi. CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal DSL ak seen marque bi di Dekakila direction de la santé mère enfant sumari.com kenkeeri le grand jaxaay ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf xibaar bu neex ñi ñuy jàppoon ci réew mi ci manifestation yi fi amoon mars ak juin 2023 xët mu njëkk Le Quotidien mi ngi ñuy wax ne ngir décrispation maanaam dalal dën yi jug ci réew mi moo waral njiitu réew mi fas yéene amnistie ñi ñu tegoon loxo ci yooyu la manifestation projet de loi bi koy jëmmal yéenekaay bi ne teg jëm ci dialogue bi muy wax la si ne kay dañuy wax ne Macky Sall mi ngi yolamal yëf yi ndax licence bu télévision Walfadjri bi ñu nangu woon nee na nañu ko delloo seeni borom boole ceekit mi ngi waajal ak amnistie générale ba tax Ousmane Sonko ak i compagnie ñoo ngi ci yoon ngir génn ca kaso ba li ko waral la si ne kay nee nañu bokk na ci ay xariti boppam moom jiit réew Macky Sall ak i nit yu fare ci société civile bi yu jóg xaaju guddi sol seenu dàll dox ci tànki jàmm dialogue mu gis na ne paaka ñaari boor lay doon ci Ousmane Sonko ndax xëy na mën na caa jaare am mu bëgg mu ñu réhabilité ko ba mu a bokkaat ci yëf yi waaye la l'observateur nee nañu moo di ak demam ngir bokk ci dialogue bi mën naa tas këram vox populi nañu ginnaaw fit nañuy nemmeeku ci réew mi keroog mu tukkee ci dàq gi ñu dàq élection présidentielle yi président de la république Macky Sall mi ngi dànkaafu ñi ci géopolitique bi dégg nañu ko keroog mu ne politique yi bu ñu mënta déggoo ci farata danañu gis yeneeni force yu organisé yu ñoo def ko seen place te bu boobaa lépp lu doon yóotu dañu koy ñàkk ba ci réew mi nañu cib interview bu mu def ak Associated Press dip agence de presse bu nekk ci la ko waxee fa la leere leen ne moom du bàyyi ba mandaam di jeex muy soog naan mi ngi dictateur dictateur lu ci réew mi wax na leen ne ñun politique yi il faut ñu def ci suñ bopp ne du ñun rekk ñoo fi nekk yeneen force organisée yi muy juñu moom Macky public yéen kaay mi ngi ñu wax ci réew njëkk ne li mu gis dalul am xel nee na yi ñu bëgg a tuxal bu yëf yi yeggee ca conseil constitutionnel conseil constitutionnel rejeté ko bu boobaa dinañu wax lan moo ca war a topp ci ñi koy topp moom président Macky Sall kenn ca di soxna Ami Mbacké dage bu ministère affaires étrangères responsable politique ci Touba diit membre fondatrice bu APR ca Diourbel mi ngi wax ci journal Tribune li mu xalaat ci dogalu président Macky Sall bi jëm ci reporter élection présidentielle yi mi ngi sàkku ci classe politique bi ci réew mi ñu ndax jàpp na ne ay yu jaar ci yoon leer ku war a bokk ñu bàyyi la nga ci loolee bu ñu ko bëggee ci toog waxtaane ko rek lañ ko mën a amee Ami Mbàkke daaneel màgget seen jël ci journal Tribune ubbil yéenekaay bi moom directeur général bu kudd jàpp na ne reporté gi ñu reporté élection présidentielle yi mooy li gën ndax dana tax ba ñu am ci réew mi ay élection yu leer élection yu dul boddi kenn ay élection yu indi ak dal ci réew mi maire Malicounda bi ne président dafa soxla suñu soutien ñun ñëpp ngir ak dal ak jàmm am ci Sénégal mu ne ñaar rekk mën a am benn moo di ñu toog waxtaan ba gindiku rëq-rëq yu fi am ñu jubbanti ko ñu continuer ci li fi nekk te bu boobaa du def dara dul dugal réew mi ci góota Maguette Sène bi maa ngi sàkku ci ñu séq bi ñu jiital dal waxtaan ak jàmm ndax loolee rek mooy njiglaayul senegal anki dina kay nañu waxtaan woowee nag mooy problème bi manifestation contre dialogue yëf yi dafa mel ni tëx yu toog bëgg a waxtaan ci jamono joojee journal Libération mi ngi wax ne ñi faatu ci réew mi ci manifestation yi fewoon keroog àjjuma lim ba yokku na ne bu weesoo Alpha Yero Tunkara di étudiant UGB bi faatu ak Landing Jeeju di ndaw lu tolloon ci ñaar fukki ak ñett te faatu woon ca moo duggee mi ñu blessé woon ak fetal ca Colobane moom it mujj naa faatu CCPS